waaw madame Sakho borom basin yu baax yi. nekk nii nga ko xottee defoo ci daamina. def na defoo ci garniture. rien du tout. jongo ma seb. ku <laughs> baa ngi nii. Mhm. nga ne ku ñeme na nga jaay ko. waaw nga sol basin. bu dàq jees neer.